abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ne ngeen di am ay xibaar. dal ak de FTTV Sénégal Tay 20 janvier 2024 di bés bi nga xam ne conseil constitutionnel liste définitive bu jëmale ko ci candidat yi l'élection ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm te tey moom mooy gulet ci Sénégal lu daal di dem ba 21 h te waa conseil la defuñu publication définitive jëmale ko ci candidat yu war a bokk ci élection présidentielle ci réew mii di Sénégal. lu sabab ren mbir yi daal di demee noonee moom mooy que ne li mu candidat yu dugal recours biir conseil constitutionnel ngir ñu daal di saytu seeni dossier ngir daal di leen di mën a dugalaat ci course bi lim boobee dafa bëri lool waaye tamit dafa bëri ay recours yi nga xam ne ne ay candidaa dañu koo dugal ngir daal di sàkku daal di éliminer yeneen candidat biir conseil constitutionnel en tout cas lépp lu mën a am war a bàyyeekoo ci biir conseil constitutionnel dinañ leen ko toppandil te dinañ leen jox xibaar gu wër bu fay bàyyeekoo te war a jëm ci publication définitive bu conseil constitutionnel wara amal la ci candidat yi war a bokk ci élection présidentielle 2024 ñi jëm. abonné vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di